ëttub Sëriñ Tuuba ni mu yaatoo Seex Moodu Mamare moo fa général mbërub Sëriñ Tuuba ma ne su daan ani gawi ndombaam ca pays diwaan sunu mbara sunu mbara daan fee xaadim rasoolo Bamba yaa daan moo mujjee woote moo gën a gëmle moo ëpp ndongo dafa bëri doole Ahmadu Bamba amba dalay jàngal ba nga mokkal Xaadim Rasool moom du la bindal sunu mbara daan fi sunu mbara daan fe Xaadim Rasool ba mo mo daan moo tubloo mbaaxaan ramlo bursin gàgganti naar yaa baay Serigne Saliou yan banu yanoon yan banu yanoon xutbu yaa la daar ya te aata nunu moo ko faf yanoon raw gaaña ku rëy bay ndamoo sa néegu ndey ba sa baaju baax lu sew tey ndamoo Cheikh Bamba mi fi xooti mbaax sunu mbara daan fi sunu mbara daan fe xaadimul xaadimoo Bamba yaa daan sunu mbara daan penku sunu mbara daan sow xaadim rasuulu bamba ya daan atub sëriñ tuuba ni mu yaatoo imam cheikh moodu mamare moo fay général yaa rabbi nampal yonen bi nampal maam seera faalo rijaalu bamba daawul nelaw ba yandoor yendoo liggéey fanaane root sunu mbara daan penku sunu mbara daan sow sunu jëwal moo daan wiiri wiir moo fa daan Xaadim Rasooloo yàgg naa daan Bamba dalay jàngal yow nga mookal Xaadim Rasooloo moom du la bindal sunu mbara daan fi sunu mbara daan fe xaadimul xaadimoo yàgg naa daan astawaalo ma ca nawel jaara poroxaan astawaalo ma ca nawel jaara poroxaan maam Assa Waalo ma ca naawel jaara Poroxaan Assa Waalo ma ca naawel jaara Poroxaan maam Assa Waalo ma ca naawel jaara Poroxaan Assa Waalo ma ca naawel jaara Poroxaan ak sa wàlla ma ca nawel jaara poroxaan mama sa wàlla ma ca nawel jaara poroxaan sunu mbara daan fi sunu mbara daan fe wuy sëriñu sëru faal yàgg naa daan lambi diine moo fa daan lambi lislaam moo fa daan Khadim Rasulullah Bamba yaa Bamba du morom Ahmadu baram la ku weddi loolo te nu reddi la sunu bara daan penku sunu bara daan sow Khadim Rasulullah Bamba yaa daan Khadim Rasulullah yàgg naa xaadim rasul yàgg naa baay Serigne Saliou oh, yàgg naa daan baay Serigne Saliou yàgg naa daan baay Serigne Saliou yàgg